nga si page bi abonné partage like vidéo bi bu baax a baax dikk ak yéen say kàddu kooke di Papa Alé Niang yëkkati rek si paasam boobee di moom nag muy samp yi question di laaj kon ni ñëpp di laajee muy xamle la rek ñaar ñoo ñi nga xamante ne si ne jamono ji ñoo yor rek la nga xamante ne si na moo di gendarmerie ak police ñoom ñooñee rek ba tey ñaa nga seeni poste ba tey daal gun fa jógee ñuy laaj nag ana lan moo tax ñooñee rek ñu daal leen fay ba léegi ndax jàpp nañ seen bila si nguurug Macky Sall daan nay doy waar lool daan nay yéeme lool ginnaaw ba nga xamante ne si lu toll ko quatre-vingt-deux personnes rek daal nañ si génn adduna lu toll deux mille deux tamit ñu daal leen doon euh, teg loxo lu ëpp trois mille personnes tamit ñoom it ñu daal leen doon buntu xotal ak di leen euh, def yu méttee métti ba tax na rek kooke di Pape Alé Niang di sampi question di laaj rek ana ñooñee lan moo tax rek ba tey ñu daal di desandi rek fi nga xamante ne si na moo di seen place di wéy di euh, yëlif li nga xamante ne si na moo di police ak li nga xamante ne si na moo di gendarmerie journaliste liste boobee di Pape Alé Niang di chroniqueur njiital Dakar Matin publié rek ci param ex di ka posé question di ka laaj leneen la sa lam sa toftan di laaj ba rek ay rapport yi nga xamante ne si ne jamono ji rek couré compte yi rek ña ngi koy dëral moom nag la may wax leen rek la moo di sénégalais yi soxla won ay publication donc waaye nag lan sa soxla mooy nag képp koo xamante ne si ne tax nañ lay épingle say rapport yoon rek ban leer na la yow mi da nga jël li nga xamante ne si ne di alalu askan askan wi yoon rek daal lay mën a teg yoon daal lay jaarale si yoon kooke di Pape Alé Niang di xamle lool daan na lool askanu Sénégal jamono ji lool rek lañ gën a sàkku si lool loolu lañ gën a bëgg waaye nag nekkul na ay publication kese moom la ni sàkku si loole kon na publication di fese jamono ji jëm si wàllum rapport loole pap Alé Niang di xamle nag ak di ko laaj ña koy laajte tamit bëri na lool jamono ji ñooñu xamante ne si ne ñoo yilëf gendarmerie ak police ba tey rek ñu leen di gis sa biir ñu daal koy yilëf ana lan moo tax rek ñu daal leen di bàyyi sa yooyu la parce que ba tey fii ñu toll nii ba tax nag saa su ne Sénégalais yi dañ si amee réaction amee question ndax jàpp nañ ne ñoom ñaar ñooñee Sénégalais yi leen doon dund euh, at yi weesu ñoom ñooñee am nañ si ay responsable yi mat sëkk ba tax na rek jamono ji mën na leen di leen gis rek ba tey ñu wéy di continuer rek di nekk si euh, gouvernement bi kon nag ba tey ana lan moo tax rek ba tey ñooñee ñu woy di des li nga xamante ne si ne euh, seen i poste di woy euh, di yilif li nga xamante ne si ne moo di ñaari service yi gendarmerie ak police